non merci rek laay wax amul la tey su turandoo sant rek sant rek sant rek waaw waaw su ma raq la raq la si man rek Abou Ndiassé numéro deux tam raq la si man xam nga lii lañ soxla woon xam nga ngi sant yàlla bu baax nag waaw làmb dafa métti xam nga mënu ma wax ko quoi tey sama xol neexul xew mënu ma wax wala dama ñàkk bañ ñëw rek mais ndogal xam nga yàlla la daal xam nga du waaw mënu ma wax ko wax barke sëñ Touba comme noonu rek ndogal barke sëñ Touba ma ñu sant bu baax naay ndaw lañ. waaj mu yàqu tey nan la mel. xaw ma sax bilaay état yi xoolal xaw ma sax lu may wax barke sëñ Sidi Mbacke. tey li Mama Lamine mooy yow boo amee a bari dama amul bañ ñëw rek ma ñàpp sama ndey